Euh, politique depuis cet après-midi ah depuis ci ngoon ñu ngi gis que ne comme un air de décrispation avec des libérations annoncées même si c'est provisoire euh, ñu bëri jàpp ne c'est une bonne chose vous partagez cet avis. je le partage parce que c'est une euh, dafa nekk li nga xam ne Sénégal y bëri dañ ko doon xaar. Mm-hmm. parce que euh, prendre des personnes yi nga xam ne le seul le seul péché c'est d'exercer un droit constitutionnel jël leen tëj leen pendant des mois sans aucune procédure judiciaire pour mm-hmm. man loolu c'est regrettable. donc bu ñu gisee tey euh, le chef d'état mu poser tels actes euh, ça nous rassure un peu. Mm-hmm. donc euh, ça démontre un tout petit peu que y a une volonté de bien faire. Mm-hmm. mais est-ce que ça va aboutir parce qu'il y a pas que ces gens-là. Il y a presque personnes qui sont aujourd'hui si li ma dégg ci prison yi sans aucune procédure judiciaire mm-hmm. les gens yi nga xamante ne ñu ngi foofu certains d'entre ñoom Euh, dégg naa sax seen i parents génn nañu àddina te fekkewuñu ko. seen i sœurs génn nañu àddina te fekkewuñu ko c'est horrible. Ouais. pour un père de de vivre cela. Mm -hmm. pour, pour pour ceux qui sont euh, libérés et qui étaient détenus pour euh, de nombreuses raisons. des mm -hmm. raisons souvent différentes tey jii du jour au lendemain on leur dit rentrez chez vous. certains ne comprennent pas c'est le contexte qui le demande wala xëy na aussi ils sont dos au mur mënatuñu leen téyel téyel dara ci sa gis-gis. waaw je pense que yëg nañu yàgg nañu waxtaan ci waaw le camp pouvoir bi yàgg nañu ko bañ ne amul mais il faut reconnaître qu'il y en a mm-hmm. parce que am na ñi nga xam ne le seul droit comme je l'ai dit tantôt euh, le seul faute c'était ñu dem exercer un droit constitutionnel mooy manifestation contre une injustice qui est là mm-hmm. moo tax mun ñu permettre sénégalais bu ñu amee naqar ñu génn manifester en France les gilets jaunes ils ont manifesté pendant des mois et c'est mm-hmm. passé y a pas eu de mort à ce que je sache. lan moo tax Sénégal a eu un seul je pense. un seul mais xoolal Sénégal Sénégal on a on La, semaine dernière cette semaine même y a eu trois morts rien que cette semaine. voilà donc nga jël ay nit dugal na ci pendant des mois ab génne leen bàyyi ñu dem seen kër. Mhm. loolu comment expliquer cela.